boo bëggee nit gëm la defaral sa nit rek soo defaree sa nit bu génnee ku ko gis dana xam ne kii fa mu jóge baax na te moom mi kuñ defar la ku amuk defaru la sëñ Mamor Sarr mi sëñ saaliw maa ngi lay ziare di la jox wàccuwaay wi nga amee léegi la ma sëñ seexu naa laam di ñëw di wax télévision bu mu ñu gis duñu sax woo waaye ñoom lay woo di waxtaan ak ñoom waaye nag loolu du mën a ñàkk ci yow léegi la ma la baataa ngay ñëw la ma sëñ Cheikh Mbacke ja njëkk déey na ma sëñ Saliou Niang borom bis bi day waajal na ko waaye bu ma doon romb baas bi ñoom ñaar ñi kenn ci ñoom ne ma sëñ Saliou Niang a ngi ci baas bi sax ma jaadu dugg toog ndax li sëñ Ablaye Diop wax rek képp ku ñuy tudd di tudd sëñ Modou Fadiama Niang wa rabbul ka'batil musarraf am nga responsabilité am nga responsabilité bu rëy responsabilité weesuwul ku ne xam ne ni sëñ Touba ay déggukaayam du dégg nii nit ñi di déggee bëtam tegewul ci bët yii nit ñi di xoole xolam dundul xollu nit ñi di xoole ku sëñ Touba di wax ne su ma xëyee dégg kàddoom sax sama xel day dal loolu sëñ Touba séedeelu ko ñëpp de te seedeel na ko sëñ Modou jama Niang wax ne ne waxtu wu ma jógee ci jàkk ji su ma déggee kàddoom sama xel day dal loolu doy na sëkk ku ñuy tudd tudd ci di la tudd rek am nga responsabilité bu rëy waaye nag li ëpp solo ci àddina yàlla defal na leen ko muy diis gann ba noppi woyof la waykat ba waxoon warub ba rajulin ka alfin warub ba alfin xiimatan ka ufi genn góor gu wecc junniy góor fees dell mat sëkk waaye woyof tooy coow lii ci dëkk bi nag ñi seen mbubu jotul rek la waaye ku sa mbubu jot doo xëcc muy wàcc damay déggéen magum géwél sax muy wax ne koo gis muy dox sax sol garaam boobu di ko meeb sax moomu ko nee ne ku ko moom du lijjanti ca cat lu tilim da koy bàyyi muy direeku loolu moo waral tey ku dëkk kër ñang na leen ko sante ku fi dëkk na leen ko sante waaye yaatal ngeen fi ñëpp damay fàttaliku sunu wenn waajur sëñ mot ñaŋ bar na ñu fi dëkk tey ginnaaw yàlla moom moo tax mu yaatal ko lool ñu baree bari jaraloon ko bakkanam nag ci nit ñi dëkk am tranquillité ku fi bàyyi sëñ Modou Fadiama Niang ak njabootam gii génn di ko wuti feneen doo fa fekk lu gën lii mënoo dëkk ci dëkk bi doo def ci jumaam ji bokkoo ci daayiraam yi respecté woo sëtam yi de bokkoo ci lenn ba noppi dëkk ci dëkk bi kenn ku nekk fa muy dëkk yàlla programmé na ko ca ësal bu yàlla ne fii ngay dëkk dëkk fa te ma bokk ak ñoom la ñuy dund nga di ko dund kër ñang laa dugg dund rek laa dëkk rek nit ku nekk war na ko def foofu sax ku nekk war na koo mën a def ak yóbbal tey nag dañ ko dul waxtaane waaye bu ñuy waxtaane cosaanul Touba danañ waxtaane fii ko xam taarix xam xam ne bu ñuy waxtaane cosaanul Touba danañ waxtaane fii te mbir yu làqu la nag waaye nag seenu noppi ak seen dal ak seen fees dell nag li ñuy wax ne ña ca teen bay xëccoo baag ñu amul baag rek la waaye ña am baag moom dañuy ñëw tànk dem loolu moo waral kenn déggu leen ci dara kon nag yal na leen yàlla gën a sàmm may leen ngeen yeggale sant sampub sëñ Tuubaa nii rek la mel lii sëñ Ablaay wax rek doy na sëkk euh, tu tànk yi nga xam ne nii ñoom lañu ñu fa fekk ñu jël bis bi tudde ko sëñ Ablaay doy na sëkk jamono ji baax moo xew ku dund lu dul baax perte nga sëñ Bay Jaxate dani ku toppewul kenn du la topp ku naxewul kenn du la nax lu ñu jiwul du mën a sax ku farluwul sa lépp neen ku farluwul sa lépp neen nag nga dëkk ci koñ bokkoo ci daayira benn responsabilité lenn lu ñuy defal sëñ tubaab bokkoo ci benn activité bokkoo ci boo ne da ngaa ci sëñ bi war ngaa xoolaat sa bopp ban côté nga nekkee ci sëñ Tuubaa ne ci sëñ bi ak nekk ci sa bopp bokkul nag waaye sëñ tubaa nee na am na ñoo xam danaa leen yël yëlbu am na ñoo xam danaa leen yóbbu yàlla nu yàlla boole na ci ñu sëñ bi yóbbu waaye nit ku nekk da nga jàngat sa bopp sa digganteeg sëñ Tuubaa lan ngay jàngate sa bopp sëñ tubaa mooy am na baat yu bees sëñ bay sëñ bi kenn kennal sëñ bi kenn du sëñ bi sëñ baat yooyu dafa war a am jëmm dafa war a am tabax boo xam ne boo ko jàppee xam ne lii la sëñ bi yaa ngi koy njëkk feeñale ci sa bopp mënoo bëgg waali sekk bëgg sëñ bi mënoo nekk gone yi waali nekk gone yi sëñ bi mënoo théâtre bu génn nga bëgg koo seetaan boo amul connexion jënd ko dabiju ko te yow genn xës da mokkaloo ko doo xëy suba sax ba durus genn da amoo sax jot gi amoo temps bi am na ci gone yoo xam dañ naan tuubaa gi lañ dëkk buñ la rombee ci mbedd yi watif yi ñuy watifu moo lay won ne ñii bokkuñu ci environnement dëkk bi parce que genre watif yi ñuy watu moo lay won ne ñii dañoo ni ci dëkk bi waaye dëkkuñu ci dëkk bi ay waa ji keroog bañ andee sëñ fii ba sëñ ma numbe di jooy sëñ Mbàkke Bousso daa jël loxoom teg ca mbaggam ma ne ko ma numbe mu ne ko Mbàkke mu ne ko ba mu ñuy defar taye taxoon nañ fexe dëkkam bi jàkk am na ñooñ ña nga États-Unis bu ñëwee Sénégal duñ delluwaat ay këyit leen fa bàyyi waaye namm nañ Touba namm goo xam dañuy toog di jooy. am na ñooñ ña Amérique dañuy daw diggante Sénégal ak Amérique ngir dem daayira man gis naa fa ñoo xam ne dëkk yi ñuy dem daayira dana mat 300 400 kilomètres pour ñu dem daayira ñëw. ñu di ko ñu respecté ko nag weekend bu nekk ñu dem yow nga dëkk ci tuubaa gii sëñ bi bu ngoon jotee nga teg sa baaful teg sa musique yokk ko buñ la buñ la rombee yaa ngi sol tuba yi peew di dox ci mbedd mi. am na ci ñoom ci sareet yi ñuy liggéey lañ koy taf xanaa rusuñu sañ Tuubaa mi sëñ bi ku jàpp na jóge na fi rek jërul ngay wékku ci sañ bi lal nag li koy defar bokk na ci mooy daayira yi koo xeeb xeeb lu garaaw nag parce que li muy defar kenn xamunum toll parce que ñii fi toog ñëpp ku ci xàmmeegun baax ak bon amul waaye nag ñi ngi koy xeeñcu bàyyi taala nag daa waxoon ne booy fa fawal ci yàlla boo ñëgee des ci mooy lii boo ko fawaalee boo màggee lii rek ngay xam waaye am na ci ñooñ lu baax da leen ñuurul nañ làmb suñu bopp suñu digganteeg sëriñ bi danoo am benn rubrique ci tale bi bu ñu tuddee lu la sëñ Touba defal ma am benn imam ma laaj ko ko mu jooy ma ne ko looy jooy mu ne ma damaa xam ne li nga laaj aw ma mooy bu ma la li ma sëñ Touba defal ba noppi man lan laa defal sañ tubaa nun sëñ Touba mënuñu koo jox alal ndax daawul sol bu mu am alal préparé wul woon pour nit di ko jox alal nun war na noo xam ne mënuluñ dara sëñ Touba juróom-ñaari atam yii ci àll bi. amul kenn ci ñun koo xam ne da nga naan sama maam ko fa nekkaloon di ko duyal sa tala te pourtant terewul lam doon def affronté na ko nag avec dignité nag tubaab bi bu xamoon dara lu mu xeebee sëñ tubaab publier na ko démb tey door a ñëw dañoo xamut ci moom dara suñ ko defoon dara itam am na honnêteté bu toll ni dana taxaw ne tubaab bi mës na maa def fii barki sëñ tubaab dëggug sëñ bi su na tey bu ko tubaab bi defoon dara dana bind ne tubaab bi mës na def nii waaye tubaab bi mësu koo def dara kon ñun mënaluñ ko dara waaye sunu jëmm jag la a waxoon rek ba mu ne sëñ Mudu Saa dama laa yërëm mu ne ko loo ma yërëme mu ne ko yan bay diis mu ne ko dimbalee ma sa bopp yow boo jagee rek ma noppalu fexeel jag rek yow waaw maa ngi sëñ bi foo dëkk man Touba laa dëkk teew Touba nga dëkk te buñ la xoolee amul benn présence benn leen lu mën a feeñ ci yow ci ne Touba nga dëkk xanaa nguru sëñ bi waaye sëñ bi waa Jamaïque sax boo leen gisee di nga xam ne ñii Jamaïque lañ waa France boo leen gisee di nga xam ne ñii France lañ jógee Chine noonu dikk bu dëkk bu ne culture ba muy dund rek ci ngay xame ni kii dëkk sàngam la jóge nga dëkk tubaa yow mel ni ku dëkk Amérique sëñ bi sëñ tubaa amul lenn lu mu am ci noflaay lenn lu mu am ci bànneex amul waaye gis nga lii ku nekk ci sëñ bi gis nga xarum gis nga dama koy misaal démb rek ci nit ku am kilifa ak ku amul kilifa mi ngi mel ni xar mi nga yeew di ko yar ak xar mi nekk ci coggal ga xar mi nga yeew di ko yar ak xar ma ne ca coggal ga bu jaay jotee bañ dem ca daral ga di nga xam ne mi am kilifa ñu doon ko yar di ko jox muy lekk di ko sang di nga xam ne bokkut ak yow piri ma nga xam ne palaatu ñebe bu mu romboon fil ko ne ci àll bi amul lum lekk amul lum naan amul ku ko yeew amul ku ko yeewi bu ñëwee prix dana wute kon nan fexe nag nun bokk nañ ci biir gétt gi sëriñ bi yeew nañu bëgg noo dundal waaye nun noo dajji jéngi yi du nekk ci suñu bopp lan lañu nekk suñu bopp mooy lu mën a xew nañ warmaal sëñ bi ak dëkkam bi waaye na gis nga ñii itam nga xam ni sëñ Tuubaa ba mu wootee am na ci ñooñ ñu mel ni ñun nga xam ne sunu maam yi ay ceddo la ñu woon ku ci nekk dangaa ngaa nekkoon ca la nga war a nekk ca la nga la la neex ginnaaw bi nga dëpp ñëw wut si sëñ Touba waaye ñoom ñii maam yi bokk na ci ñi njëkkal nangul sëñ Touba avec ñoom ñii bu sëñ Modou Fadiama ñang dellusiwaatoon di leen nettali lim daj laataa muy jot ci sëñ Touba ak lim daj bi mu wuy jëy sëñ Touba kon danañ xam ne ñun ñoo ngi ci noflaay waaye ñoom ñun ñoo taxoon ñuy liggéey sëñ Modou Fadiama ñang ma ñang bàyyi yu fi immeuble tey ku sëtu ci moom boo bëggee barke di nga ko am ndax da lay jege liggéey na ko ba pare teg ko da làmb rek mu ñëw kon nag ñoom lu ñu mën a suñ diggante ak ñun mooy wormaal leen te te te fonk leen te jàpp leen ngir fu sëñ Tuubaa def ab defam toppam siti rek lay doon maa ngi lu baax guddal naa waaye sëñ Ablaay mii kàddu gii ma ma jox moom mii moo ma ko gën a mën fuuf ndax mate na ko sëkk te mën na ko waaye xol bu sedd lañ am ci bis bi ak mbégte moo xam ne ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem maa ngi ziyaare njaboot gi fi teew yëpp sama sama sama sama sëriñ bii sëñ xaadim maa ngi koy ziyaare ndeysaan sëñ eh, Abdou Salaam moo nu nuyoole woon Mbàkke léegi la ma sëñ Cheikh Mbàkke ja di nuyoole ak moom maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu sëñ moor Gueye gis naa ko léegi ci jataay bi eh, moom mais daayira bi ñu fi taxawaloon tudd ko tasoo du si xaar man bokkoon naa ci daayira ba fii koñ bi yor naa fi bitig di fi jaay ay poobar ki jimboog lu ne jaay naa ko fi ci koñ bi waaye loolu lépp fi ne lu baax rek la tey lu baax mooy la sëñ Tuubaa waxoon rek liggéey ak jaamu yàlla loolu rek la sëñ Tuubaa dégle ñoo ngi jégg lu baax wa salaam sëñ salaam jërëjëf sant naa bu baax a baax sama waa ji maa ngi lay siyaare jërëjëf sëñ Cheikh Mbacke comme ni ñu ko waxee rek ñu ne ñoom ñoo dëkkandoo te fii bëri na fi ñoo xam ci ci daayira bi moo leen jàngal wax dëgg yàlla kon ñu ngi sant bu baax di santaat bu baax a baax waa ma waaye ba xudus te xam ne danoo mën ne wut wax ci mbooloo waaye sant naan bu baax a baax waaw ñun waa daayira Tusub Sixaar du def leen lu di roy ci ñoom ñoom tamit ñu roy ci ñun dafa di jàll saa bu ñu amee bis comme nii ñu ko defee ñoom tamit noonu la ko defee ñëw teewee bis bi ba mu jeex kon nag wax dëgg yàlla sant leen bu baax a baax ñu ngi seeraat ñëpp di santal bu baax a baax sant moom daa mënut a passé sant rek wax dëgg yàlla suñu xol sedd na lool ba nga xam ne sax mun ñoo yëkk di kàddu ci seen kanam ndax xol bu sedd wax dëgg yàlla ñi ñaan daayira bi fi mu bëgg ak yàlla na ko suñ Tuubaa eggale wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñoo ngi leen di siyaare tey jiital ci sunub siyaar ak sunub nuyoo xalifatul ham bi tarixa muridiya sëriñ tubaa Cheikh Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba bépp yéene boo xam ne am na ko ci liggéeyal Cheikhul Khadim mu defee ko ni mu ko bëggee te ànd ko mboolem jullit yi rawatina mboolem taalibay Serigne tubaa yi ñuy santaat bu baax waa dahira Mawahibou Khoudoss di jiital ci siyaar bi sunu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ñuy suñuy sëriñ di suñuy jëwriñ ci yoon wi muy waa kër sëriñ Modou Fa Jamañang li nga xamante ni moom lañuy soññee ci kàddu waa lu kennal sëriñ Saalih gépp muy sant waa dahira Mawahibou Khoudoss ndax suñuy jëwriñ lañ ci yoon wi ñuy suñuy royuwaay kon ñu ngi leen di ndokkeel ci bis bii bis bii nag lenn dong lañ ci wut muy taw tawféexi sëriñ Touba yàlla nañ ko amandoo te yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp. ah ñuy sàkku nag ci képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu muy kaddu Serigne Hamidou Diop yi nga xam ne moom la fi yëkkati ci ndaw loo xam ne dëkk nga Touba kenn ku ne la nga ci am nga jël ko foo yéene cee jariñu waaye bul ne wax na nii rek nañ la dem ndax ñëpp. muy mag muy ndaw sëriñ Touba dong moo ñu war a ñor comme ni mu ko waxee ñun defaluñ Serigne Touba lenn Serigne Touba lam ni defal def na ko bu yàgg la muy amit suñ borom fay nekk ko bu yàgg kon ñun ñooy jëfal ñun ñooy jëfal suñu bopp luñ jëf rek suñu bopp lañ ko defal. léegi niñ koy niñ koy dimbalee mooy képp koo xamante ni ñu gis la yow mii nga dëkk Touba war ngaa mën a doon ak saa Touba bari na ci ñun ndaw ñi benn ci man buñ génnee sax ñu naan la ak saa Touba nga koy bañ ñun ay saa Touba lañ suñ Touba ñu defar. te Serigne Saliou mii ñuy sant moom moo ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ Touba defoon ca mag ña nagam yooyu wuñ ko sax ma barkeeloo ko te Serigne Saliou ñun moo ñu wan lan mooy cant bañ mën a taxaw di ko sant. kon ñun lan la ñuy bañ ci saa Touba nañ doon dëgg dëgg Serigne Touba doon dëgg dëgg saa Touba tey liggéey sëñ Touba tey tàmbalee ci Serigne bi tey yam ci Serigne bi wasalaamualeykum. wa rahmatulah jë jë jërëjëf sëñ Galas. di sant bu baax a baax waa daayira soppe Mawaahibul Quddous ci invitation bu am solo bi di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp di leen wax ne ñoom référence lañ doy nañ sëkk référence képp koo xam ne yaa ngi doon daayira ci koñ bi war nga mën a xool ci ñoom ndax daayira yi bari na trop waaye mel ni ñoom ci doxin yombut kon ñu ngi leen sant bu baax fii moom xëy na suñu kàddu sax waruñ ko fee jub ndax suñu kilifa rek ñoo fi nekk mais ñoo ngi leen di sant bu baax sant goo xam ne am na commencement waaye amul yamukaay kon dañu yemale foofu kàddu yi di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkk ñoom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. يخلق victory. ginnaaw bu nuyoo bu nopp ñu sant suñu borom baax baax moom mi nga xam ne moonu may ñu fekkee bis bii ndax lii tawfeex la ndax am nañu suñu borom may eh, ñuy ñuy dund ci jamono ji ñu nekk waaye ñu ngi ci leneen loo xam ne ni jàpp naa ne lii la suñu borom gën a namm kon ñu ngi sant suñu borom baax moom mi nga xam ne moonu may ñu nekk fii fi ñu jàng alxuraanul karim di tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu daanaka euh, kàddu yi du mën a gudd dañuy soññee tuuti rek ndax comme ni ko sëñ ji li waxee comme mébét yi nga xam ne doonoon ko mébét ci fii ci Kër Niang ndax ku ne xam ne ne fii ci Kër Niang bari na ay daayira daayira yi wax dëgg yàlla bari na lool ñu am positif ñoo fi nekk ci daayira yi kon xam naa ni ko sëñ ji doon soññee ci bi ñuy waajee a tabaski rek pour ñu waxtaan ba daayira yi ñu def benn fédération boo xam ni nii daayira yëpp la boole daanaka sax du tee kenn ku ne àjjuma bu ne di nga mën a nekk benn bërëb di daayira waaye tamit booloo gi jàpp naa ne moo gënal sëñ bi ca lu am solo la kon loolu dinañ si gën a waxtaan baax baax ndax boo xoolee daayiratu bi nga xam ne mooy daayira Mouwahiboul Khoudoss ak daayira Miftahul Xuyóor ak daayira yi ne ci koñ bi yëpp ay borom Pastef lañ yoo xam te ni jàpp naa ne buñ booloo luñ bëgg taxawal fii ci réew mi waxuma la Touba cax waaye biir Sénégal gi yëpp rek liñ fi bëgg a defee mën nañ kaa def kon loolu ñoo ñoo ngi soññee ci jëm ci loolu ñun ñi nga xam ne ñooy membres yi nga xam ne ñoo bokk ci daayira yi ñu gën a farlu gën a booloo nekk benn ndax daanaka ñoo bokk bëgg-bëgg ñoo bokk euh, fu ñu jëm ca li ñuy def nii muy di cant dëgg yàlla lu am solo la ndax wax dëgg yàlla comme li nga ko wax sànq bi ñu tàmbali jàng Alxuraanul Karim jàng xasida def ay bernde lu am solo la waaye mën na ni xool tamit leneen loo xam ne den gën a yaatal ndax boo xoolee ci wàllu cant yi ba bëri financement sànq rek maa ngi doon waxtaan ak gars yi ma àndal léegi bi ni bi ni bi ni dem ndax boo xoolee daayira yi ne Kër Ñang man na cinq daayira yoo xam ne wala ëpp na ko daayira bu ne chaque année di nga cant cant goo xam ne dana mat ay deux millions wala deux millions cinq cent te loolu jàpp naa ne xaalis la mun si gënee waxtaan war nañ kaa mën a gën a organiser xool nu ko def noo xamante ne dina gën a jëmmal Kër Ñang dina gën a jëmmal dëkk bi ndax ku ne xam ne ne jumaa ji ñu nekk muy <coughs> euh, sëñ Mour Fadiama Ñang dëgg yàlla bari na euh, war naa mën a gën a gën a gën a taaru ñu ngi ko jégul baax na ci waxin gi waaye li nit nam mooy rek euh, boo tegee sa tànk avant nga jub penc bi rek mu nekk mu nekk mu nekk lu rafet loo xamante ni comme na màkkam na màkkatal mu karam mel euh, am na ni yéen jooj pour mel ko ndax di jàng nañ ci histoire yi bare bare ñuy wax suñu mut faa jamono digga digganteem ak sëriñ Touba kon maa ngi ñaan daal daayira ñu booloo euh, gën a waxtaan ba nga xam ne loolu mébét yooyu ñu mébét ci kër ñaan suñ borom sottil ko ñoo ngi jéggul baax na kàddu yi ndax kàddu yi dañoo xaw a bett ñoo ngi koy jéggul baax baax jërë ngeen jëf li rabbin kaari na saakaara wa artaji min xu أبكارا كتبت سكر الله ما قد رجوت به كوني سيدا سكر وجات واجيا في زار النبي سناد لأكرم الرفيق وحابسك حق جملتي عني وتسيره لداركم فار إني أخاطب في البار ولم يزل جل هرا وجبارا فدعتني ربي بالألايام لأن أعود للبري كل من بار على النبي صليبي تسليم بالكرامة وارفع وسين يبا درافع بكارا siyaare mbooleem kilifa yi nekk ci jataay bi yépp ak mboolem ñi nga xam ne ñoo teewe jataay bi kenn ku nekk ñu ngi lay sa tur ak ci sa sant ñun nag ab dongalan rekk bu ñëw ci barab bi ñëw taxaw taxawaayu donga rek ndax ki ñu àndal muy Serigne Saalihu Ñang moo ñu jaral lii tey ndax day sunu kilifa di sunu sëriñ ñu yaakaar leen àddina ak alaaxira waaye nag ñoom ñoo ñu jaral li ndax li sëñ Ablaye mii wax léegi ak sëñ dun seenu taxawaay ak seenu jub ak seenu mbaax te damay faral di wax ni man moom duma ma jàppe nit ci lenn du aw sant du lenn li ma koy jàppe rek mooy ak jub ak mbaax ak bëgg sëñtu Touba wallahi lazim te ñoom ñii loolu moo nekk ci ñoom jataay bii nag li ko waral sunu teewaay Serigne Saliou mii moo ko waral muy Serigne Saliou Niang ibnu Serigne Cheikh Niang ibnu sëñ Modou Khari ibnu du Modou Fadiama te pàkk bi comme ni ko siñaami duñ waxee day pàkk boo xam ni ñooy faral di wax ni ñi ko dëkkee xamewuñ xamuñu ko pàkk bi ñi ko dëkkee xamuñu ko sëñ Tuubaa nag xëyloowut wenn wàll yu gontuloo sëñ Modou Fadiama amul loolu moom amul kon bu yàlla dogalee gone yi daal di toog ci barab bi di fi liggéeyal yàlla def ay dayra ba bis tey bii ñu xeemem doxinu Serigne Saliou ñang mii ba tuddee ko bis bi yàlla na ndax sëriñ Saliou de dama min ci ay kàddoom muy kàdduy dëgg billaahi wallahi wa taalahi du ma ko du ma ko fenal ku mu mënta wax dëgg bàyyi la barki Seexul Xadim xam naa ko bu baax man ab taalibi laa ci moom damay wax ni sama xarit waaye man matuma ci moom xarit ndax xarit koo du sama moroom ndax sama sëriñ la juróom lañ ma tuddee waajuram defal na ma lépp te waajuram kat wàccoo naag ñëpp wàccoo naag doom wàccoo naag taalibe gis penc mii ni ko def xam ne wàccoo naag doom wàccoo naag taalibe kon nag bu ñuy xale yi tey amee jom ji taxaw taxawaay bii di liggéeyal Serigne tubaay ci dëkkam bi ba taxawal lu mel nii ndax boo demee feneen suñu am xam na ci dara boo demoon Dakar boo doxee ci menn bet di nga gis leneen lu bokkut ak lu mel nii loo xam ne lañ fay financé sax mooy ëpp lii te amul ngërëmul yàlla amul ngërëmul sëñ Touba kon bu ko ñii defee mën nañoo jaajëfal waaye kin ko tuddee nag moo tax muy Serigne Saliou Niang xam naa duma ma ci xóotal ndax mënu maa wax ci moom nit dañ ne uude matul seere ci béyu wopp ndax lu luñ pex dañ naan der baa tax waaye dama naan na seere rek ndax bu seeru der ba la bëgg su seere der ba la bëgg na seere rek man nag dinaa seere kon kon Serigne Saliou ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal yàlla guddal seeni fan yàgg sa mbokk yi nga ba lépp lu ngeen yéene liggéeyal sëriñ faa Fadiama ci penc mi suñu borom kàttanal leen dooleel leen bàyyi leen ba may def ko nam leen soobee damaa bëgg nag ñëpp déglu ku doon dox rek na nanga na taxaw kuy wax nga noppi ñu déglu sëriñ bi ndax sëriñ bi bëgg a jël ay kàddu kàddu yi nag du gudd waaye nag na ko ñëpp déglu ngir jëmi Sëriñ Tuubaa Sëriñ Amidu ñu ngi lay siyaare bu baax. di leen wax ni liggéey ba liggéey daj liggéeyal yàlla. wala liggéeyal yonante bi te loolu ku ko def sëñ Tuubaa nga ko defal kon seen jataay bi jataay gënu ko kon jataay bi nit mënta jam ci jataay boo ko gën a màgg wala boo ko gën a sell ndax lépp gënul alxuraan ak xasaayit kon wax ji daanaka jërul muy gudd ndax ci sëñ Saliou la jëm li tax ñuy wax ci moom nag dafa am lu ñu xam ci moom loo xam ni ñoo ko fekkee dundandoo ko ak moom kon suñ ko tuddee lii day baax ñi nga xam ne ñoo ko tuddee ñu wax leen kan mooy Saliou du ñuy sëñ am ak sëñ Ablaye jàngalekat bi yàgg na ci def na ci ay at nit ku jàmbaare la ak liggéeyam ci jumaay ji sëñ Saliou day nit koo xam ni su ma juumut bi mu amee juróom-ñaari at wala juróom-benn at lañ ko jox sëñ Saliou te loolu 82 la 82 ba 2001 ay at la nit su defee fenn benn at dana am expérience am lu mën a jàngale am lu mën a wane. kon 82 ba 2001 loolu daay caaxaan te li ma ci li may wax nii lu ci bëri dama koo fekke te loola ba muy nekk ak sëñ Saliou duñ wax ni sëñ Saliou booba gone la woon déedéet mag la woon waaye dafa doonoon mag moo xam ni lim amoon ci ay taalibi ci jamono yooyu da leen daan dajale ci benn bërëb di waxtaan ak ñoom ku mën a dem ba toog ak ki ngay yar di ko woo téléphone di ko woo muy ñëw ci sa kanam muy toog nga di ko laaj foo toll ak di ko cuq booba am na jot ndax yaakaar naa ba muy dem got di ko fa fekk façon wan daan wam daan war ñu di ko wax lislaam booba fas wa faatuwul loola fekk na ko fa nit ku mel noonu nag ku nekk ak moom ay at dana baax ñu wax mboola mi fi daje na leen kii ngeen tudde lii kat mooy kii nit la koo xam ne mën naa jàngale mën naa yare te naa ni ci lay ci sax ndax loolay ab cëram ndax li mu am ci xam-xam ak expérience bu mu jëlee ci kër Sëñ Saaliw warut a def dara lu dul moom yare waxuma la jàngale waaye yar rek la war a def jikkoom rafet na ci ay mbokkam maslaam rafet na ci ay dëkkandoom du jàppante du xuloo du bàyyi nit du mere nit du gis nit du ko dumooñu mm-hmm. loolu lenn rek moo ko may mu yarub Sëñ Saaliw dara mayu ko ko lu dul ab yar ba muy nekk gone ba bi muy nekk mag bokkoon na ci ñi gën a jàmbaare ñi nga xam ni daara ji suñuy tànn ñi di def ay jëwriñ wala ay topp jëwrin dañuy xool ñi ëpp positif dàq liggéey teg seenub liggéey ci yoon ñu di leen jiital ñuy jiite waa ji te loolu danaan bokk ci ñi ñi tànn kon loolu positif dëgg moo koy wane daara nag boo fa demee da nga fay fekk ay nit ñoo xam ni danañ am melokaan wu nekk ñii danañ yee ci gerte gi ñii danañ ci tibb di denc ñii danañ def nangam ñii danañ loolu mës cee bokk. kon daal la ngeen xam ni Saliou li mu def ci daara Serigne Saliou su ko defoon ci bi muy doon xale di jàng école di ba génn dana dem ci université yi gën a mag ci àddina bi ñëwaat toog ci télévision yi di wane ni man maay diw man maay professeur nangam wala man maay. lu nit mën a wax rek mooy saaliwu mi ne xam naa ni li may wax ci moom nii doonul loo xam ni damaa toog ni dama ko nettali waaye dama ko dund ak moom muy jëf may gis ñu nekkandoo muy xale bu am jom di liggéey kenn mësu koo dégg ci daw jàng kenn mësu koo dégg ci jóge daara sàngam wala lu mel ni nga ñëw di tàggu suñu Saliou ne ko jële bi ci daara ji yóbbu ma ci daara ji ndax fee dàq fii ndax fee moo bokk na ci daara ji mu nekkoon muy daara ju metti la woon kenn ñamewu ko woon ndax ay mag kese fa nekkoon bu fa xale nekkee dana diis ci moom te nekk na fa ba jóge fa te kenn mësu koo dégg kon ku nekk ak sëñ Saliou ba mu xëy woo la gërëm la yeewi la nga delluwaat ci sa ci sa biir famille ndax sëñ Saliou da daan wax ni kat ku ñëw ci daara ji soo fi jógee boo delluwaatee ci fa nga dëkk gisoo ñu jox la ab cër defaroo ko kon cër bum defaru defaru moo tax ngeen tudde ko lii jox ko cër bi ñu leen di ñaanal li ngeen def rëy na suñu xol sedd na kenn mënu leen a fay ndax lii ak yëg la mboole ngeen ko ci seen bopp liggéey bi sell na liggéey bi rafet na moom daal alhamdulilah yàlla na ko yàlla jëmale kanam te faj aaju ñun ñëpp wax ci baas na tey laa ko mas a def mm-hmm. waaye damaa toog dégg nit ñi di wax ma xam ni sama kàddu gi mënuma ko ñàkk dugal ndax kàddu yu seere la ndax dama koo fekkee moo tax mënuma ko wane ñàkk wax ma ni ko woon faaw ma wax ko nit ñi kii mooy sëñ mer du xuloo du xaste du jànni du jëw te lu ko nit ñaan su nekkul ci poosam duna la nekk fi waaye dañ la toogal déglu ma danaa tuddi jikkoom dinaa tuddi meloom ndax yàlla wàcceewaat fi nun am na ko ci loolu laa sant te ca sant googu amul fu mu yem kon mbokkee daal ngeen xam ne sëñ Saliou ngi nii ñu ngi leen di ñaanal yéen it yàlla yàlla taxaw leen te jàppale leen ba fi ngeen bëgg a egg suñ borom eggal leen fa asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf